difficulté ce matin. Mr. Sheikh, là, Diago Sonko, depuis les Amériques, les États-Unis d'Amérique côte-ouest, voilà, Gaïté de dama analyse discours président Sonko conférence de presse en français dans la langue de Molière un Ousmane Sonko très éloquent un Ousmane Sonko très à l'aise, n'est-ce pas, en Wolof, mais aussi très à l'aise en français où il a parlé au public africain, au peuple africain, aux dirigeants européens, au monde d'une manière extraordinaire. Ousmane Sonko il vraiment a xel Macky Sall mais vraiment discours il a parlé aux juges il a parlé aux forces de sécurité les policiers gendarmes il a félicité les jeunes juges indépendants il a averti Macky Sall Là, le président Sonko discours n'est-ce pas il a surtout félicité le peuple mature le peuple sénégalais mature pour la réussite totale n'est-ce pas du

président Macky Sall qui a perdu la tête gay yagnal yàgg na mars laal Macky Sall dafa dof bokk naa ci njëkk wax Sénégal ñëpp diko ko dégg bokk que ne Macky Sall dafa dof kañ la ko wax mars 2021 xalé yi di dé Macky Sall dugg ci voiture blindée dem Médina kii mel ne dafa bëgg jàmbarloo xale Medina yi foofu tam mënoon nañ fa rey xale Medina Macky Sall dem RTS ci genre combat ci laa ne nag kii nag dafa dof nag président bi wérul dafa dof Ousmane Tounkara génn na moom tamit bu wax ne dafa dof mais pour la première fois on a vu Ousmane Sonko mu wax ne Macky Sall il est obnubilé par le pouvoir il ne pense qu'au troisième mandat mandat qu'au point il est esselé, il est esselé, entouré par ça, par une petite minorité de, de comment dire, de sanguinaires comme Malik Sall, de sanguinaires comme Moussa Fall, Malik Sall, Comme Ousmane Sonko léegi moom xam na ne Macky Sall àndutul ak sagoom te Macky Sall il ne reculera devant rien yàgg naa lañ comme nag président Sonko dem na ba xamal ko boppam ne qui lan rek moo fi c'est ça qu'il a dit beaucoup. Il n'y a plus d'espoir. bu ñu waxee ñu les chefs religieux Ousmane Sonko ne bu fi kenn wax waxu sëriñ bu fi kenn wax waxu chef religieux Macky Sall balaa muy wax ak rek c'est parce que dafa sukk xam ne léegi mu ñàkk nguuram quand il a dit je vous ai écouté je vous ai entendu tout ce qu'il voulait c'est se réorganiser n'est-ce pas, se procurer de nouvelles armes qu'il va utiliser contre la jeunesse qu'il va mater Macky Sall néna na ba muy wax né dégg naa leen xam li ngeen bëgg len rek la bëggoon outil ay ganay waxon na len ko mars 2021 le 8 la woon defe bañ ko waré a ci nguur gi ngeen dellu ginnaaw Ousmane Sonko delu ginaaw man live la doon def maa ngi woon New York Ousmane Sonko ba waxe dañ koy gungé ba 2024 billahi wallahi taala ngay gay ñen palma dama saga ci anglais sanni sama téléphone téléphone bi la doon filmer temps yoyu dama ka sanni live bi mi ngi daw mané Ousmane Sonko def na erreur bu mak Macky Sall def du du nit bu baax bañ ko jekko dañ ko woron dañ ci woron profiter ñu jëlé ko fa man loolu la waxoon patriote yi di ma saga ndey ay saga ndey bon di ma saaga tey ñooñu mu doon saaga ñu ci bëri ñu ngi naan ma waxoon nga dëgg dañ ko fi war ndax xëy na bu ñu fi jële woon te xale yi dee tey du ñu dee xale yi dee tey du ñu dee yeneen ñetti xale deewaat nañ ñetti xale deewaat nañu te des na Ousmane Sonko nee na des na ndax Macky Sall n'est-ce pas euh, euh, paregul léegi waaye nag Ousmane Sonko xamoon na li mu li mu bëggoon mooy wan sëriñ ñi ne moom dafa dégg ndigal que Macky Sall moo déggul ndigal. waaye léegi leer na ci bopp Sénégalais yi ne bu ñu yëgoon bu ñu yëgoon mars ñu jëlee ko fi mais Ousmane ko dafa ne bu boobaa armée bi moo ndoroon jël nguur gi te fi mu nekk loolu la Ousmane ko wax Macky Sall jaral na ko mu yàq Sénégal ba armée bi jël nguur Youssou Ndour gis ngeen ko mu dem si sol tenue militaire loolu yëpp ay signe la ñu bëri ñu naan ma bàyyi Youssou Ndour bàyyi Youssou Ndour saa yu may def sama analyse ñu naan ma pour wax di fi defal mars 2021 Youssou Ndour sol yére militaire loolooy wane ne Macky Sall bu jëlul nguur gi benn général la parce que Youssou Ndour nee na Macky Sall moo ma arrangé moom Sonko looloo tax nag Ousmane Sonko mu wax ak armée bi Ousmane Sonko s'est adressé directement à l'armée pour leur dire soyez une armée républicaine policiers gendarme yi mu ne leen bu leen nangu ñu pour le sale boulot ngir ñaaw def yi def te gis nga Ousmane ko wax ji muy wax da ngeen yaakaar ne policiers yi dégguñu ñu ngi koy dégg da ngeen yaakaar ne gendarme yi dégguñu ñu ngi koy dégg ndax fi mu nekk Macky Sall la ñëpp a ngi koy bàyyi Aminata taal bàyyi na ko Mankeur Ndiaye bàyyi na ko te Ousmane Sonko mi ngi leen di gërëm te nee na ñeneen ñi ñeneen ñi continuer leen ndax Sénégal bi ñoo ko bokk lal la ko Sonko waxati ñan la dëgg gërëmaat mi ngi gërëm xale juge juge ndax lan. Macky Sall lu tax mu ne Ahmed Aïdara du bok parce que Ahmed Aïdara jité euh coalition Yewwi Askan bi gédjé way lu tax mu ne Cheikh Bara Doli du bok parce que Cheikh Bara Dolly moo jiite euh, euh, Mbacké te Macky Sall bëggul nekk foofu lu tax mu ne Kimar Marius Sagna bokk parce que Guy Marius Sagna nekk Casamance mu lu tax mu tax Déthié Fall parce que Déthié Fall mooy mandataire national Cheikh Bara Dolly Ousmane Sonko nee na paquetage lañ ko lañ ko yóbbu ngir la torox paquetage bi nga xam moo gën a métti yàgg naa def ay vidéo ju e, e, e, boucle ma ne leen li am Sénégal safara la paquetage ndax benn chambre rek 100 personnes nek fa deux personnes ñaaru douche douche yi saw bóoti kaña yi ah ñii dof ñii di wat gay yi palma baal febar ñii am corona nga jël député bo xamné dafa am immunité ah nga war ko yóbbu flagrant délit nga jël ko ñu daal di giraat xam nga koy waxé immunité nga ne faale wu ma immunité Macky Sall Ousmane Sonko nee na dafa yaakaar ne mo moom Sénégal dafa bëgg jité Sénégal comme moko mom lu ko neex moy am lu ko nakar du am ku àndul mom moom kaso Ousmane Sonko nee na fukki at Macky Sall la nekk na lu mat juróom-ñaari téméré nit ci lan ànduloo mom comme lu def Karim Wade comme lu def Khalifa Sall mais Ousmane Sonko nee na loolu dafa jeex te gis nga xex bi xex euh, euh le concert de Kassawal ça ne va pas simplement dire qu'on va se limiter à faire n'est-ce pas un concert de Kassawal ce serait trop facile pour Macky Sall il y aura d'autres formes de lutte

2024 Barthélémy Dias seetaan naa ko faram ak euh, euh, Pape moom it loolu la wax Macky Sall mënoo ma jàpp parce que loolu la bëggoon Ousmane Sonko nee na loolu la Macky Sall bëggoon jàpp Barthélémy mais Barthélémy dafa muus li mu nekk maire de Dakar nekk tête de liste Dakar Macky Sall képp kuy tête de liste rek daa lay jàpp mais Barthélémy man émission Sénégal rek lay seetaan une heure de ngeen seetaan ko faram-fàccee ak di nga kontaan ci ba Barthélémy bi ndax bañ ko laajee ndax Ousmane Sonko ngay jàppale 2024 mu ne moom Khalifa Sall lay jàppale bu bu bokkul nag mu ne bu bokkul man Ousmane Sonko laay jàppale ndax Ousmane Sonko moom moom ma ba ma nekk maire kon ñi yaakaaroon ne Barthélémy day nekk maire moom ne day nekk candidat Barthélémy day ne du nekk candidat bu Khalifa Sall nekkul candidat Ousmane Sonko lay jàppale comprendre Barthélémy Dias boo xam ne moom it li mu wax ci Macky leer na troisième mandat kenn du ko fi def mais vraiment man damaa kontaan wax dëgg su may liggéey sama xel day dal damay am ànd sawar sawarte parce que xam naa ne sama réew réew guerrier la te Ousmane Sonko li ma wax démb la wax Sénégal mooy dëkk boo xam ne bu ñu waree feete Coupe d'Afrique dañuy feete Coupe d'Afrique dóor nañu Égypte dañuy mais ça ne veut ay dof lañu Macky Sall yaakaar ak Matar Ba wëndeelu fu nekk ñu dem fa wane coupe bi Sénégal yi dootuñu xeex foofu ngeen naxe seen bopp Sénégal yi ñu ngi ba am coupe d'Afrique loolu la ñuy ba jëlee fi Macky Sall xale yi dañoo sonn Ousmane Sonko wax na ko mais dëkk bi dafa dóor wax ji yëpp loolu la <laughs> ay salaire u deux cent mille démb ba ko Barthélémy Dias waxee maire de Dakar ci Pape Ngagne nee na da ngay dem ba am master salaire u deux cent mille la ñu am Barthélémy Dias yëkkati conseil municipal Barthélémy Dias ne dañuy jox junni nit junni ak juróom-ñaari téeméeri nit yi nekk ci mairie ba ku nekk cent mille francs ñaar fukki junni Barthélémy Macky Sall ne loolu du fi am loolu du fi am te ñooñu ay salaire cent vingt mille la ñuy am salaire deux cent junni yi bu ñu leen waxee la ñuy fayee ko loolu ko topp ñun ñeewuñu député ñeewuñu député te ñun ñuy fay xaalis bu taj bu takku mais yéen ngeen jàng ba dee ñu leen di fay dee cent ba pare ba bi war leen jox xar mu ne Macky Sall ne du ci dal capitaine Touré ba léegi mënul Macky Sall ne kenn ko fay euh, Guy Marius Sagna parce que ñooñu Barthélemy moo leen jël def leen ci mairie ba Macky Sall ne kenn ko fay kenn du leen fay soxor nit ku ne moom moom mais billahi wallahi taala dina rey junni Sénégal waaye dictature du am Sénégal kenn ko seetaan sëriñ yi nag bu yóbboo ñu jub ñu wax te xam ne sawaay jeexal na buñ ko deful Macky Sall buy daanu day yàqaale mouridisme yàqaale tijanisme yàqaale laayeen lépp lépp luy kilifa diine da koy yàq ndax militaire la ko jël def ko fa mu rey ñëpp ñëpp ñàkk loolu nag loolu mooy soxor loolu mooy iñaan te loolu bu ko defee boppam la ko def ndax du ci amul ndam ak mën na ci ñàkk bakketam mbakkenam xale yi ñii rey bañ leen jox seeni njaboot Ousmane Sonko nee na Macky yematul ci jàpp nit ñi Déthié Fall euh, euh, baara doolu yóbbu ko paquetage néew yii ñuy rey fële Casamance ki ñu dóor bal léegi nee nañ paaka lañ ko jëm famille am nee jox leen suñu néew ñu suul ko ñu xool ndax paaka la wala bal la ñu téye néew bi léegi dañ ko bëgg téye ba mu nëb gars yi ngeen baal ma nga xam ne ñoom dootuñu mën a wax lii nag laa la ñuy joog leen ko jox Macky Sall dafa dem ba dof gars yi like leen partager abonné leen encore une fois ñu wax bravo au président Sonko ñu ngi wax Sénégal bravo ñun lii la ñu xaar ci amul dellu ginnaaw Macky Sall bu delloo ginnaaw pour naxaat leen gën a defuruwaat bu 2023 ko ci seen affaire la xam nga avertiroon naa leen de euh, mars 2021 man dañoo waroon jeexal feex ñu may saaga bii ba tamit waxaat naa leen ko Macky moo leen jox ne doo leen bokk ci élection yi da ngeen nekk nag dañuy bokk par force bu bañee ngeen jëlee ko fi bu leen ko bàyyiwaat mu naan la dégg naa leen nag je vous ai entendu je vous ai compris dinaa la joxoon quatre cent milliards xeex leen xeex leen ba mu jóge fi xeex leen ba mu jóge fi armée bi ñu lay àndal policier yi ñu la ñuy àndal vive le président Sonko vive le Sénégal vive yow askan boo leen partage leen